da ngeen jëf ceeb bu sew bekk wax ju sew ji jóge na léegi fa mu nekkoon ma nga ca diggante neexi tubaab Abdoul mbay ak Aminata Touré Mimi sa defante bi am seen diggante observateur ci la xëy xëy ca ci xëtamu njëkk Aminata Touré moo njëkk a yëkkatee kàddu jëmee ci Abdoul mbay di xam leneen lu aju ci mbirum Hissène Habré Abdoul Mbaye da cee wane ak nooy dëgër ga ca waroon dëgg Abdoul Mbaye amu ko ca ab diir la ñu ca teg Abdoul mbay génnee kàddu teg ci ndoddal Aminata Touré ne du ma tontu Aminata Touré li ma mën a wax ba wax ko daal moo di waxam jooje ay kàcc kese la yu mu dajale observateur moom xëy dajale loolee lépp ngir xam ana lu lal mbañeel gi dox ci diggante ñaari premier ministre Sénégal ba woon benn ci ministre yi xëy leen xamal ne mu Aminata Touré di Abdoul Mbaye ñoom ñaar musu ñoo doon ay gayen observateur nañu li leen gën a boole nag li gën a xam bu taal bi layëb Hissène Habré ci la direct info ne ko bu ci yéenaale lenn moom dong la mbiri Hissène Habré moo tax Aminata Touré ak Abdoul Mbaye mel ne sawar ak caas moo tax neexawuñu moo tax ñu dëkkeeb dàggasante ñenn ci conseil yu président Macky Sall xamal waa direct info ne leen mu Aminata abdul mbay ku ca da nga dem ba and tok sa sago xet xet gi dalen ko yobul yóbbu leen ma ci la Sénégal ñu fekki fa Aminata Touré journal bi nañu ak lu man de xew Aminata Touré samañ nako abdul mbay ba mu raw ci facebook am bi ne yekk nako fa lu melni xeme abdul mbaye ak këlëbam bu yes bi mu taxawal la ci Aminata Touré gis modi ci wax ju ñaaw la ko taxawale maître Sidiki ba xii taxaw ci xet mu njëkk Sud Quotidien journal bi nañu mo donon invité grand format Sidiki ba du daral lu fa baye birum Hissène abrahim birum basiro fay fetalante gawonte tambakunda lepp maître Sidiki Kaba jëwrin game wàllu yoon wax na ca doore ko mbirum Hissène Habré mi mu ne bu ñu ko génnee Sénégal ne ñoo ngi koy delloo cëm réewam di Tchad bu ne cëpp ci aéroportum N'Djamena fa la ñu koy méttee mu faatu maître Sidiki Kaba ne ci moomi le mbir gis na li ci Aminata Touré wax doy na sëkk ne ay leeral leneen lu mu leeral moom maître Sidiki Kaba moo di mbirum Bassirou Faye nee na dinañu ca dem ba jeex dana wuute ak mbirum Blondin Diop Abdoulaye Wade mi jëli tuuma gàll ci kaw Macky Sall ci ne dafa indi ay njuuj njaaj ay tappale ak guerre ci mbiru ArcelorMittal kii di maître Sidiki Kaba ne wax jooje procureur de la république mën na no cee saisiru topp ci Abdoulaye Wade maître El Hadji Amadou Sall ne ko ci laas kon ngeen way mbay El Hadji Amadou Sall ci journal bi di dànkafu Macky Sall ku nguuram na leen leer ne benn pepp ko raw Abdoulaye Wade dong donte barelewu ko ku ko ci laal mooy sak faatu moom Abdoulaye Wade ci populaire yéen bi nañu ma ngay waajal meeting am ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre ca xàll wu ñu dippee général de Gaulle Abdoulaye def ba dajale mbooloo yéen a kaay bi nañu bokk na ci képp responsable parti démocratique Sénégal nga fii ci Ndakaaru nga fexe indi ñaari téeméeri nit Wade la mu bëgg ci boobule meeting moo di lu mu gàtt-gàtt lu ëpp benn million doom yi doomi aadama ñëw teewee ko ki teewul ci layob Karim Wade bi ca mel ne teew na fa ay Aidara xëy na teew ci yéenekaay yi ma nga ca Walf Fadjri mi ngi ci observateur ubbil wal fajri journal bi nañu moom Vieux Aïdara ca France ga mu nekk la binda bataaxal waa CREI yi la mu wax ca bataaxal ba moo di samak dem ca France demuma fa ngir di daw waaye ku ma sànk laay baññe li tee Cheikh Tidiane Ndiaye dugg ca kaso ba Vieux Aïdara ne man maay ki ko def ñu fekkaat ko l'observateur mu dëggal ko fa Cheikh Tidiane Ndiaye bu muccee ci kaso na ma ko gërëmee man Vieux Aïdara journal bi nañu ci lettre ouverte la ko def ubbi leen sunu làmb ñu fekki fa le Seigneur du Baol mbooloo moo di Tapha Tine borom taq ci répp yéenekaay bi nee na def année blanche defaat ko ren loolee xel xalaatu ko pakala mi koy laaj moom tafatin banaan daan ko moo gën a yomb ci moom lekk ceebu jën tafatin nañu bu laajoon bombardier kon du ma sóor moom bombardier mi roi des arènes tafatin ne doonul sama roi des arènes ndax moom bombardier man tafatin daan naa ko kon man tafa may roi des arènes